Assalamualaikum mbokk Saint Louis TV ma ngi amane mbégte ak contentement di jàkkaarloog yeen fi nga xamanteni ci Saint Louis TV la ci spécial bi nga xamanteni moy mooy gi ñep xam nañu événement bi ngi ñu ngi koy donc dañu luñ defuñu lu dugg ci marché bi xam wata waxtaan ak population bi waxtaan ak ñi nga xamanteni ñoy jaay kat yi na lañu préparer événement bi duma def loolu and ak sama cameraman bi dugg ci bir marché bi defal leen reportage te delu ñi ngi ni fi nga xamanteni moy jamono tisi jakarlo ki nga xamanteni moy mooy bi tur bi Jamil Cissé la tudd maa nekk fii butiku jamono di gérer affaire yi daal quoi. waaw ñu gis ni corité baa ngi waaj a ñëw nan nan la clients yi di ñëwee fi instant bi nii. waaw alhamdulilah alhamdulilah macha allah clients yi ñu ngi ñëw di jënd si tissu yi donc yéen a ma gën a xam quoi préparation corité Sénégal moom du yomb quoi alhamdulilah macha allah gars yi yëpp ñëw quoi. mais instant bi yan xeetu tissu ngeen am instant yi nii. waaw tissu jamono moom yaatu yëpp fi am quoi macha allah xeet tissu bu bëgg rek bu yomb bu tane am nañ tissu góor tissu jigéen. tulli jazner mbazin riche franchement xeet tissu bu way bëgg rek bo ñëw fi mom di nga kontaan quoi dañ la ko defal inshallah quoi kon dal mën nañ wax ni jamono tisi dal lepp xéewale na ne macha allah lu way am bo ñëw di nga am tisi di nga sañse bu mu jekk def ba mu baax wala lool mom deug la quoi mom inshallah fi mom bo ñëw rek ku ñëw mom mom wax deug yàlla dañ la bëggal di nga kontaan dañ la jaay lu yomb def la ko dal ci anam bi ko gëna bëgg rek inshallah waaw ñu gis ni Korité bi aussi mi ngi jege si ñu gis ni aussi dem wër bi sori na ndax client yi ñu ngi ñëw bu baax waaw waaw xam nga Korité bi loolu tamit di si joué te jaay ko tissu aussi dafa am benn affaire bu si am euh, jaay tissu xam nga tissu fa nekk li xam ne koy préparé euh, bi lu mu gën a jege si rek daal mais ba tey na ñi nga xam si nii dañuy yàq ñëw Sénégal am na ñi nga xam moom dañuy bàyyi ba a am na ñi nga xam si ñi nga xam na événement yu am si ginnaaw takk yeeg ngénte yeeg am na nga xam si bu amee événement ci biir koor gi dañ ko nangoo def dañuy bàyyi ba après koor gi ñu àjji ko def ko foofu noonu kon donc du coup franchement gars yi ñu ngi ñëw daal alhamdulilah. mais par rapport ak ren bu ñu bu jëlee defee constat par rapport ren ak daaw vente yi nan ngeen ko gisee tey. waaw ba tey amul benn kii daal alhamdulilah sant rek. Euh, daaw ren sant yàlla ñu ngi sant daal alhamdulilah ñu ngi sant daal. ngi sant daal sant daal waaw waaw sant daal sant daal ci la lépp xëj maanaam maanaam loolu lañ mën amoon si li ñuy wax quoi bëggee nañ ñëpp di saar ñëpp bëggee waay. waaw comme ni ma leen ko waxee woon rek ñu ngi fii fi nga xamante ni mooy tourisme couture chez Ali Diakhaté bi ñu ngi lay nuyu. ñu gis ni événement mi ngi jege si ñu gis ni liggéey bi aussi demeewul noonu maa maa ñu bëgg a xam ndax ni weer bi sori la wala client yi ñoo ñëw wala dëkk bi amul xaalis la. Ah, comme ni nga ko waxee rek lii moom wax dëgg yàlla képp ku nekk ndar wala ak foo mën a nekk tam xam nga li xew am na changement bu baax a baax par rapport ak yeneen euh, jamono yi daan dem ko instant bi nii même pas trois jours julli gi fi ne marché baa ni gisoo kenn affaire bi nit ñi ñëwunu clients yi bari woon aussi vraiment xam naa ni li si gën a ëpp solo aussi mooy nit ñi amuñu xaalis am na ñoo xam ni ñu jël seen xaalis def ko fenen mo leen di gënal jël ay ñaw yo di ko sol quoi parce que jamono neexul mëno à chaque fois ngay xotti ay yéré di sol té fekk sa kër ravitaillement bék lépp dara amul mo tax daal vraiment amna changement bu baax baax kon tay changement buñu buñu gisé né tay dafa melni euh li dëkk bi amul xaalis moko waral ben instant benen bi moy li nga xamanteni aussi nit ñi bala ñuy solo bañu bala ñuy tal solo dañu tal ñu ñu lek c'est ça loolu moy li li ëpp solo ndax defe naa saako bu deful dara du mën taxaw léegi nag yow mi per de famille soo gisee ni affaire bi wóor nañ la sa budget li nga yor mënoo si fay ñaw wala nga si def yeneen nga def si li nga xam ne mooy li ëpp solo li ëpp solo def naa mooy lekk bee naan affaire boobu noonu la demee mais en cas am na changement bu méttee métti métti surtout aussi sunu mbokk gendar yi nga xamante ni seen liggéey doxatu noonu ndax sunu marché bi gendar a ko yor mais ñoom depuis seen liggéey taxaw ba léegi vraiment dara doxul fii ta euh, ñom luñu am marché bi day feñ mais depuis bi seen liggéey taxaw ba légui do feñ ci marché bi feñ ci ndar yup la la wax légui na buñu ñu nak aussi ñu dimbalé ñu ci bu ko défé ñi nga xamanteni ñoo suñu mbokk gënder ñu mëna am dara bu amé dara ñun wa marché ñu am dara loolu mom il faut ñu ngi koy lancer appel pour euh, autorité quoi loolu rek la waaw comme ni mu ko waxee dégg nañu wax ji dafa mel ne li nga xamante ni mooy liggéeyu guet yi li mu taxaw dafa affecté économiquement li nga xamante ni mooy marché bi te je pense que ni ñëpp gis nañ aspect boobu noonu parce que loolu la ñëpp di jooy si ki ma lakkandoo donc loolu daal loo amoon loo amoon si li may wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di la gërëm yow aussi ñoo ko bokk man te maa leen di gërëm baax a baax si seen teewaay aussi di leen ñaanal aussi bonne continuation merci beaucoup ñu ngi lay gërëm di la sant jërëjëf waaw génn nañ ci biir marché yi ñi nga fi nga xamante ni fa la téré nek ak jaaykat ci ñu ngi fi ñi nga xamanteni moy ci biti mbengok ñi nga xamanteni ñoy ñooy jaaykatu dàll yi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay bu baax baax sëriñ bi sëriñ bi day nañ nan nga gisee marché bi ak waytaay ko korité korité bi waaw alhamdullilah ñu ngi sante yalla bu baax baax jël ci yonent bi di sante suñu ñaar waajur di sante sëriñ tuwa bu baax baax Cheikhuna Ahmadul Khadim waaw dem bekté bu baax nak ci téwaat ko tay ji parce que depuis des années tey ñu koy teewe tey buñ ñu ko teewaatee alhamdulilah dañ sant bu baax a baax mais ne tey bu ñu seetloo tey événement bi comme ni mu commencé déroulé nii par rapport ak par rapport ak tey yi nga xam ne daana fi jàll parce que moment boobu heure bi daana fekk affaire yi commencé jax tuuti sa xel dal nit ñi di jaar nga xam ni lii nii xëy na xaw na dal xel mais moment bi daal xaw na xaw na tey tuuti nag mais nag en général fii moom Euh, à la fin rek euh, lañ ëpp lu ñuy lu ñuy lu ñuy gën a jënd ak yu demee noonu xam naa dañuy xaar fii ak suba wala fii ak ginnaaw suba am na nu muy deme xam naa dina am changement daal incha allah. kon daal suma ma déggee bu baax su ma déggee bu baax nit ñi dernier moment li ñuy gën a génn quoi di ñëw jënd si matériel yi. waaw waaw noonu la demee nag noonu la demee fii moom dernier moment lañ la ñuy gën a ñëw bu nee suba la wala bu nee ginaa suba la daal lañ ëpp lu ñuy jënd surtout bu ne ginnaaw bu ne daal mais tey jii tey jii lan boo gisee lan moo waral loolu du dëkk bi dëgër la wala dëkk bi amul xaalis wala lu mu demee noonu. ah non ñii nii moom seen habitude la quoi seen habitude la ñii moom bu ñu demee ba ni la si guddi gi lañ ëpp lu ñuy jënd quoi fii moom daanaka chaque année noonu lay demee xëy na nag année yi passé bu desee trois jours yu demee noonu des fois euh, daanañ sax xaw a kii mais ren moom xam naa ne euh, loolu la ñuy xaarate rek comme dam quoi. ren daal instant bi dañ tekkaaral gum quoi mais mën nañ jàpp ni fii ay fan daañu ñëw génn jënd ci matériel bi. mais tey ji mais tey nag dàll yi nii nii nu muy demee tey dàll yi ku bëggoon dàll tey ñaar bu amee ñaata la mën am dàll tey jii nii non yi seerul waxaale ba jiw rek xam nga moom yàgg nañ koo jënd surtout fii nii gars yi xam nañu fi daanaka du jël waxaale bu métti waaw gi moom daanaka xam nañ ni mu demee fii tout le temps ñun ñoo fi jaay waaw xam nañ ni mu demee daanaka say client presque nga fi jaay boo ñëwee ay 2000 2500 gën kaa seer 3000 lay demee quoi xam nga loolu seerul quoi daal mën nañu jàpp ni tey lu waay lu waay indi boo ñëwee am daal incha allah rabbi fii lu fi waay indi da am daal bu soobee yàlla waaw waaw ah, sëñ bi sëñ bi gërëm nañ la sant nañ la bu baax a baax jërëjëf merci beaucoup kenn mënul wax sañse te waxul accessoire yi noonu la demee sama jóori ñu lay nuyu waaw sëñ maa lay baax baax waa Seelu TV maa leen nuyu di leen bëgg lu bëri bëri ñu gis ni tey Korité baa ngi waaj ñëw tey lan nga présenté tey comme marchandise tey présenté rek ay bagage bagage yu fi ay susu xale yu def tarkal yu masala boo xam ne xale bu ko rek xam nga ku wax événement nag xam ne événement moom pour xale la quoi xale yi lañ sant ngay gis bagage xale yi ñu ngi fi xale ay montre ay ay jaar plaqué xam nga di daal fii daal moom boo fi ñëwee ku fi ñëw pour sanjre da nga kontaan xale bu jigéen bu ñëw wala xale bu ndaw bu ñëw wala kam me ba meer quoi ñun ñëpp ñëpp leen di ñëpp leen di bégal incha allah ku fi ñëw rek da am da nga bëgg waa bu baax waa bu tarkaaw mais tey jii nii nan nan a dundee événement fii ndax njaay mi ndax mi ngi dox wala affaire yooyu noonu waaw événement événement moo xam nga ni mu daan demee ay jamono benn saani bu a baax a te gis nañ ne léegi année bu ñëw rek day gën a dellu ginnaaw année bu ñëw moom day xaw a léegi ba pare que même temps ni ren suñu mbokk mool yi xam nga ren xam ñun ñoo daan a dimbali a baax mais ren géej bi nu mu demee fii ah, mool yi toog nañ fii di wut ay licence ba taay amuñu licence te ñoom rek moom xam nga fii moom ku na ku moom na génn ndar quoi te génn ndar xam nga ñoom ñoo jëndkat yi macha te ren xam nga boo gisee marché bi ni ma xaw a nii ah, am nañ si tiitaang trop mais tamit ñi ngi ñaan yàlla suñu borom bu indi fi def a waaw noonu la demee comme ni ko gars yi waxee rek sikki ma lakkandoo moom fépp la affaire yi moom fépp la fépp la te gis nañu rek aspect bi nga xamante ni mooy aspect bi nga xamante ni moom la ñëpp déploré mooy li nga xamante ne ñàkku liggéey ñi nga xamante ne ñooy gendarmerie yi seen liggéey ren demeewul noonu te bu liggéey bi demeewul noonu marché bi du dem donc gars yi ñu ngi ñaanal suñu borom yàlla suñu borom def xéewal xam nga yëpp jar waaw noonu la demee ñu leen di bu baax amiin tamit waaw li ngeen def nii waaw daf ni arrangé quoi dafi arrangé jaaykat yi def nii gis vidéo yi gis bagage yoo xam ne soxla ko daal wala daan soxla ko jaaro wala tey ay saaru marchandise yu mel ni xaaral dem marchandise parce tamit lii moom maanaam daal yéen da ngeen plus quoi ñun ñu leen sant baax baax tamit tamit euh, tant que ngeen doxee ba ñëw fi tamit ñu ngi sant baax a baax dinañ gërëm yéen moom wax dëgg yàlla te xam nañu képp ku wax taw korité wax li nga xamante ne mooy sànce waaye wax li nga xamante ne mooy ganaar moo tax ñu ñëw fii ci marché bi fekk fi suñu yaay ji nii waxtaan ak moom yaay booy na ngay def. maa ngi fi rek. tur bi naka la. xadi ganaar. mère xadi ganaar ñu gis ni korité bi mi ngi jub si ndaga njaay bi nu mu demee fii ci marché bi. njaay mi de moom ren neexu dëkk bi amul xaalis nit ñi fay wunu dàll jarul robb jarul ñii ma dendal kenn jaayul dara du ganaar du dàll du robb ñu ngi toog di xaar yàlla yonent bi Serigne Ah, loolu loolu moom loolu am solo suñu yaay yow da ngeen da ngeen li mu wax nee njaay mi jarul dëkk bi amul xaalis waaye yaay mën nañ xam lan moo waral loolu ah lu warul loolu xaalis a génnul ci réew mi moo tax dëkk bi wow xaalis moo génnul moo tax dëkk bi wow kon tey jii nii man bu ñu bu ñu bu ñu defee constat dañuy xam ni kon dëkk bi dafa dëgër dëgër dëgër bi dëgër dëkk bi dëgër moo tax yi ñëwuñu waaw dëkk bi dëkk bi dëgër ku amul xaalis doo génn nga yor sa njaboot war a jënd dàll wala jënd sér wala jënd ganaar togg ak ndugg soo amul xaas doo dem fenn marché bi sax daf ko wane dafa wéet na mu daan xumbe xumbewu ko mais est-ce que est-ce que est tamit tey tey bu ñu bu ñu bu ñu xoolee fii ginaar yi tey jii nii mbaa ginaar yi seerul. ganaar yi seerul nag lool nag nii daana na fekk ganaar yi jeex ba nuy wëriwaat ganaar yi nu jaay tey la ñu yore woon ñetti fanu yàlla gis ñu sox ko jënd. kon tey lan lan ban ban ban appel ngay lancé autorité yi tey jii nii. lu may laaj xanaa ki nu jiite réew mi rek wàccee xewal ci réew mi yombal mbir mi. yombal xaalis bu événement amee muy teel a ñëw ndax baa doole mën ci am loolu dong laa bëgg bu nu yàlla may wér gu nu toog nu nu yàlla may wér moom mu jàppale nu moo ci mën a jàpp mu baax bu jàppee rek mu neex ndax bu génnee xaalis ak dëkk bi xum. jërëjëf yaay booy maire Khady Ganaar kontaan nañ ci propos yi rafet na trop waaw sama gars yi noonu la demee ñu demaat ci kanam rek xoolwaat ñeneen gars yi léegi léegi. waaw comme ni leen ko waxee woon rek ñu ngi ci marché bi ba léegi. est-ce que comprendre ngeen ñu ngi nii taxaw ak benn client bi nga xamante ne moom ci marché bi la jógee comme ni ma leen ko waxee woon jaaykat yi mënuñu dem sans jëndkat yi moo tax ñu taxaw ak ñu papa ji papa ñu ngi lay nuyu jii nii ñu gis nii Korité bi mi ngi ñëw nan ngeen nan ngeen waajalee Korité bi tey jii nii Korité waajal xanaa waajal sunu ay doom rek waajal xale yi yëre jëndal leen yëre yu baax yoo xam daal ko mën tabaski ak soxna yi jox leen pare julli jëndal xale yi yëre ñu kori kori gu neex wasalaam waaw tey jii nii korite gi tey ñu ñu gis ni ñëpp li ñuy dëkk bi amul xaalis dëkk bi dafa dëgër tey jii lan ngay wax ci loolu yow waaw loolu dëgg la dëkk yi amul xaalis moom parce que géej ji am jën te géej ji moo amee fii géej ji moom bu amulee rek du am waaw jën amul moom moom korite gi amul xaalis moom xanaa di burjo rek ba man kor loolu daal mooy fa wasalaam waaw tey kon ne ban ban ban appel ngeen lancé autorité yi tey jii nii daal xam nga mooy gouvernement bi dimbali waa Ndar parce que Ndar géej gi moo ko amee géej gi bu doxalee Ndar du dox géej gi moo amee Ndar diggante Sénégal diggante Ndar ak Mauritanie ñaari état yi dañu war waxtaan licence am dégg nga gaal yi dem géej dëkk bi am xaalis di ñi jënd lu ñu bëgg jënd góor ñi jënd lu ñu bëgg jënd loolu daal moom laa xam ci dëkk waaw jërëjëf papa kaddu yi rafet na kontaan nañ trop trop trop ci kaddu yi nga yëkkati comme ni nga ko a a am xaalis xam nga ah, Louis TV ñu ngi fii ci marché bi xam fekk fi suñu yaay yi nii moom tamit nekk ci événement bi xam événement bi tax ñëpp jóg ñëpp ñëpp nekk ji yëngu yaay ñu ngi lay nuyu. waa ci maa ngi leen di fay waa Seenu TV yéen sa kaw sa kanam rek kii sama nenne la sama góor la sama nenne la sama taw bu góor yéen jàmm rek ngeen di am ñu ne ñoo ngi nii alhamdulilah rabbil alamin ba nu wooree si jàmm wooree si jàmm ak salaam sant yàlla kese chaîne bi nag na jëm sa kaw sa kanam ngeen am jàmm. bay ibbi ay chaîne chaîne chaîne chaîne am xéewal gu bëree bëree bëree ba mag awa kumba di fa jouer théâtre ak spectacle <laughs> kon nag jàmm ak xéewal. <laughs> waaw tey jii ñu gis ni ñu ngi waajal korite gi nan nan ngay waajalee korite bi. Ah, korite gi ni ma ko waajalee mi ngi ni brochette yaa ngi ganaar yaa ngi taabal yaa ngi tout euh, côté tout est bien daal. ñu ngi gërëm suñu yaay ji xam nga waa ginnaaw njaay bi njaay nu mu demee est-ce yaa ngi ñëw. waaye des na tuuti xam naa sa kanam la ñuy génn. dañuy bàyyi ba sa kanam heure bi heure ndog dafa jot dañuy bàyyi ba sa kanam gaañu doog ay fal. waaw kon gars yi noonu la demee mag amaat mbégte ak contentement di waat ñëpp di waat ñëpp di wax ni tamit kontaan nañu Saint-Louis TV daal nii la demee xam waaw mbokki internet yi lii lañ leen indiloon si li nga xamante ne mooy waajal korité gis ngeen ne dugg nañ si marché bi dugg nañ si dëkk yi waxtaan nañ population bi si li nga xamante ne lan la ñuy waajalee li nga xamante ne mooy fête fête de la bi du def aussi di gërëm ñi nga xamante mooy sama caméraman aussi di nga gërëm ki nga xamante mooy sama réalisateur kontaan nañ trop si ñoom ñu ngi baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ak te di wax sa kaw